état yoo xamante ni état du Sénégal signé ak ñoom ay convention donc ci lu ñuy jaar mooy ci Pape Makhtar euh, mu nationaliser euh, boobu les alors que Pape Makhtar simple prête-nom kese la mhm. donc man je pense que euh, les autorités doivent aller même beaucoup plus loin mhm. dëgg na bon ils ont parlé de cent cent ñaata encore licence cent vingt je crois waaw cent vingt mais dañu war a publier les les les les comment c'est en fait c'est prête-nom mhm. ou bien ces gens qui ont prêté leur à des, à des, à des, à des étrangers pour piller nos ressources, je pense qu'on doit publier leur nom. Mhm. bon avec 132 navires nationaux et 19 navires étrangers ñoom ñooy pêche ci euh, les eaux sénégalaises. Euh, avec toutes les garanties nag maintenant liées à la présomption d'innocence. donc mais ñu jàpp ne am na ñoo xam ne effectivement man depuis loolu nag c'est pas euh, propre au régime de Macky Sall. Mhm. Mhm. man depuis régime mu régime mu régime mu Abdoulaye Wade man dégg yu mel noonu. dama daan dégg il y a des sénégalais yoo xam ne ils sont là ils ont des licences de pêche. am na sax benn ministre de des pêches boo xam ne dafa aayoon ci loolu. Mhm. boo ko jegee rek <laughs> muy militant muy euh, sympathisant wala yooyu. mu jox mu door mu door mu door la benn licence. nga dem jaay ji ko ah, pêche wala wala kii yaa xam. Mhm. en profitent nag maintenant pour pour revendre ça à des. parce que des fois yow bu ñu la joxee Ibrahima Anne bu ñu ko joxee benn licence de pêche alors que il n'a pas un navire. Mhm. amul euh, gaal amul dara mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mais il va revendre ça donc loolu loolu yëpp moo moo indi lii et je comprends maintenant l'empressement du président du conseil européen. Euh, mhm. Charles Michel Charles Michel. Mhm. lu tax il s'est empressé de venir à Dakar. parce que lii c'est une manne mais c'est boo xam ne qui de leur filer entre les doigts et sur ça je crois que euh, vraiment je salue. Euh, la diligence des autorités di ñaan vraiment ñu ñu ñu ñu ñu wéy ci loolu et puis aller beaucoup plus loin maintenant euh, au-delà de la publication de la liste des des bénéficiaires des des véritables bénéficiaires. mais ñu def audit du secteur. audit du secteur là. Mm-hmm. Mm-hmm. ba vraiment tous le tenants et les aboutissants de tout ce qu'il y a de tout de tout ce qu'il y avait de ça parce que la pêche quand même je crois que actuellement c'est notre notre premier chapitre de en matière que léegi arachide kii damay tul noonu. donc euh, notre notre première matière d'exportation li ëpp liy génn Sénégal pêche bi la. voilà c'est la pêche maintenant léegi loolu nag bu euh, tourisme amoon na ay temps bon doon na kii mais tourisme depuis la Covid ce n'est plus ce n'est plus que long euh, il n'est plus que. la ñu <laughs> donc Covid bi ñëw nag vraiment euh, assommé ko donc on doit tout pour que la pêche revienne ci kii bi mu nekkoon dynamique bi bi mu nekkoon nekk une mamelle économique boo xam ne mën na jàppale kii bi. loolu couplé a mesure yi nga xam ne actuellement ñi ñi ngi commencé di ko jël bon muy agriculture bi parce que mm-hmm. euh, j'ai vu le conseil interministériel sur l' agriculture boo xam ne vraiment barke démb mm-hmm. la ko la ko premier ministre mm-hmm. euh, ak euh, li ma liir ci yaakaar gi nga xam ne moom la baykat yi ak ñi nga xam ne ils s'intéressent à l' agriculture yaakaar biñ ci am ak yeneen secteurs yoo xam ne ñi ngi koy laal ndànk ndànk ndànk ndànk je crois que tout cela réunit ça ça peut valoir leur valeur des succès et en définitive nga xam ne doo duñu Euh, ils vont pas euh, déchanter ils vont pas du ñu nu ñu koy waxe du ñu seen yaakaar seen yaakaar voilà seen yaakaar tas du tas ci ci li nga xam ne euh, fal nañ ko kii nga xam ne kii di euh, Bassirou Bassirou Diomaye Faye d'accord d'accord Moustapha yooyu la accord de pêche euh, Abdoulaye Wade ba muy nekk jamono yi mu nekk ci opposition bi mi ngi ko doon jiiñ ay socialiste Abdoulaye Wade ba mu ñëwee aussi jiiñ nañ ko ko Macky Sall aussi mu continuer est-ce que yaakaar nga ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye accord de pêche yi non seulement ñu leeral ko mais aussi peut-être ñu revenir ci yenn accords yi nga xamante ni daf ci am te souvent intérêt sénégalais yi kiiwuñu ko bu baax a baax euh, ñi ngi koy wax euh, ay euh, prête-nom yu ni mel bokk na ci liy sonal nappkat yi nga xamante dañu nekk ci géej. je parle sous le contrôle de Ibrahima Anne bi Abdoulaye Wade doog a falu. <laughs> bi ñu yëkkatee coowal accord de pêche yi. ci lañ commencé woon di wax naan stade Léopold Senghor bii. <laughs> accord de pêche lañ ko tabax. moo ko tabax waaw moom pont ba fi nekkoon du nekk pont Sénégal 92. bi Macky Sall xam nga Abdoulaye ko daaneel sax. Macky Sall Macky ko daaneel voilà. yéexoon na ko daaneel d'ailleurs il a bien fait mais li am solo mooy euh, sous le régime de de juuf am na licence de pêche yu ñu doon joxe. waay Ablaye Wade ñëw. dénoncé ko jàpp ne moom ñu bari dañ ci profito euh, enrichir seen bopp. Mm-hmm. am na sax ay dossiers yu ñu ci yëkkati woon. ba convoqué yenn om politique yi. bokkoon ci ci a Diouf. à la DIC. waay après ñu tegaat ko ci suuf. Mm-hmm. bi Macky Sall ñëwee j'ai entendu des gens dénoncer les les licences de pêche yooyu mais gisuma ñu def ci li ci Abdoulaye Wade bëggoon def. Mhm. mooy mu jaraloon ko mu ne dana ci poursuivre ñenn. ils ont commencé à faire exactement li nga xam ne moom la ñu fi fekkoon. Mhm. sinon même parce que buñ ne la bu ñu et ça c'est important li Ibrahima wax saa mhm. il faut ñu génne. liste ñi nga xam ne dëgg dëgg dëgg ñoom lañ accordé les licences de pêche soo ci gisee Moustapha Diop mu dëkk ca njàmbur gële xamul géej amul bateau amul gaal amul dara nga gis ne dañ koo jox euh, je parle de moi je par pas de l'autre Moustapha dañ koo jox <laughs> dañ dañ koo jox waaw dañ koo jox de Walf voilà dañ koo jox licence de pêche nga xam ne kii mais ci ak njubadi la nekk dañ koo jox mu jaay ko mm-hmm. Mm-hmm. parce que man animé naa fii benn diine ak jamono boobu coowal licence de pêche yi moo amoon mm-hmm. coowal géej gi ma invité fii ñi nga xam ne ñooy napp ak ñi nga xam ne ñooy armateurs yi xaw ma nu ñu ko tuddee ñooñu mais bi ñu ñëwee toog fii werante bu metti moo fa am ci ñii yéen da ngeen naan ay ay kii ngeen xaw ma nu ko tuddee te amu sax bato mhm. man j'étais étonné d'entendre ça que seen bopp am na ñoo xam ne si ñoom dañ naan yéen am ngeen ay licence de pêche am ngeen ay kii amu leen sax bato ñu naan non ay partenaire la ñu am ca ca étranger ba ñooñu la ñuy booloon mais yooyu dafa keral parce que tey ñi nga xam ne ñoo gën a profité ci ci mbir yooyu non seulement état bi li mu ci doon am ama ko ci amatu ko ci parce que ñun ñëpp pas am na benn chiffre mu joxe sax mais ñun ñëpp bi ñuy jàng école suñu ne économie Sénégal pêche la ñu njëkk a wax moom nga a dégg dafa amoon leçon buñ ko buñ ko a ko daan dañ ko daan xaw ba xam ñu ngi koy jàngale ba léegi mais ce dont je suis sûr mooy lañ ñu jàngal ñun ne loolu la pêche représenté ci économie Sénégal man da koo jàngal sama doom may ah, li muy wax nii leçon yi muy wax nii ah, on parlait des pêcheurs des cultivateurs des éleveurs et c'était en premier lieu. effectivement oui et ça merci merci Paasan. et ça c'est extrêmement important ci li Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye nekk def parce que mm-hmm. nee naa mm-hmm. yoo xam dafa forcément y aura des je nu ma ko des lobbies. Mm-hmm. yoo xam ne yu am doole ñun ñun ci gën a ñun ci gën a sonal. mooy waa France ak ñeneen. mais du ñooñu rek. tu auras des oppositions à l'intérieur du pays loo xam ne li nga bëgg def neexu leen. te lu ñu mën pour yàq ko dinañ ko def. tey bu ñu la. paasan moo ko wax ne pêche lañ daan wax ne agriculture ne élevage tey bu ñu laa pêche posé nañ ci jéego yi ñu ci posé déjà sa xel day dal da naan yàlla bu ci yaakaar tas Ibrahima Ad wax na léegi le conseil euh, interministériel bi nga xam ne moom la premier ministre présidé ak la mu wax ci wàllu agriculture mais ba mu ko waxee ba pare baykat yi ñoo njëkk ne alhamdulilah parce que parce que baykat yooyu ñun ñii ne ci média yi xam nañ ne pendant des années man j'ai parlé avec beaucoup de a j'en ai reçu fii ci Walfadjri ñu lay wax ne ñun bu méttee bu métti nañ ñu bàyyee jox njiwu bàyyi leen mais état bi leen di jox jiwu ak engrais kay loolu lu baax la ñu ne parce que état bi ñi mu koy jox dafay enrichir ñeneen ñu dul ay béykat waaw Moustapha Cissé Lo wax na ko exact Moustapha Cissé Lo a dit dañuy dañuy dem village yu lëmu ñu jox leen saako bërigo gerte ne leen nañ ko nañ famille bi oui c'est le porte-parole du. Ibrahima micro bi micro bi. Mhm. c'est le porte-parole du conseil national des cadres du je crois des des xam non conseil CNCR je crois. quelque chose comme ça concertation des cadres ruraux je crois. quelque chose quelque chose comme ça waaw. c'est une organisation faîtière des des des paysans mais il a dit que état bi dafa war a xoolaat la manière. Mhm. de de de de financer les agriculteurs parce que intrants yi ñuy joxe. Mhm. souvent ils donnent ça au les gros agriculteurs quoi les les ñi nga xam ne ils sont dans business ils ont drainent des milliards et autres là. Mhm. au détriment du petit paysan alors que ki ñu war a ki mhm. le petit paysan. on ne pas aider ñi nga xam ne ils ils des centaines d' mhm. alors que le petit paysan qui a agriculture familiale moom il ne reçoit absolument rien tout. merci comme ni ñuy subventionné kii rek. des fois dañuy euh, les subventions qu'on fait sur le carburant. oui mais des fois. ñi nga xam ne ils ont des gros porteurs ils ont des des des automobiles mais ils en bénéficient alors que <laughs> l'objectif initial c'était de ñi nga xam ne ñun nu les gagne petit là. kii ak le taximan ak le koo xam ne peut-être il a qu'un véhicule. Mm-hmm. benn pousse mu tàkk mais ñooñu euh, l'optique c'était d'aider ces gens là. effectivement excusez excusez moi Moustapha c'était c'était juste parenthèse. pour dire que les subventions doivent aller effectivement comme la comme Sidi Ba l'a doivent aller aux petits paysans mhm. et non aux gros, et oui. aux, aux, gros investisseurs. Et, et, le développement mhm. en réalité oui. ce sont ces petits paysans là jii boo fexee ba ñu am lu ñu dundee atum lëmm mhm. parce que seen bay moo leen ko may am am xëy na loo xam ne dañ ci mën a joxe euh, fayale seen i doom mu jàngi jënd ci yére tabaski mm-hmm. nga xam ne danañ delluwaat ca la euh, euh, Ablaye Ablaye Ablaye ñang doon way tabaski bi lool li c'est-à-dire tabaski di di di neex neex goo xam ne parce que nawet bi dafa neex mm-hmm. ba bu tabaski bi dajeek nawet tabaski bi day neex xar day am mm-hmm. nu xaalis day am yu mel noonu Sénégal dafa soxla dellu yooyu yooyu soo déggee gouvernement buy réfléchir noonu mais forcément da nga ci am yaakaar tey jii Abdou Diouf j'en sais quelque parce que celui qui gérait le projet c'est un grand ami à un de mes oncles mm-hmm. mais le projet des vallées fossiles mm-hmm. ah. Abdou moo ko fi yëkkati woon eh pour faire revivre les fi nga xam ne ndox la ndox moo fa daan jaar depuis suñuy eh maam sécheresse dem ba ndox amatu fa mais foofu revivre le revivre les les les vallées fossiles mm-hmm. mooy développer euh, l'élevage l'élevage ak mbay mi pourquoi parce que di nga mën a tànk di arroser mais boo ci boolee euh, jur gi dinañ am fuñ naane am la pêche artisanale la pêche artisanale yooyu soo déggee un gouvernement ko wax wax da nga naan mais ñii sénégalais yi ñoo war a ànd ak ñoom jàppale ñu def ko man ba may jàng école euh, dama naan dégg ñu ne parce que boobu pas école boobu j parce que boobu maa ngi maa ngi Dakar gii euh, euh, nu ñu koy waxee sax projet vallée fossile dañ naan li ko téye woon mooy Mauritanie d'accord ci woon parce que Mauritanie dafa jàppoon ne dex gi bu ñu ko xëccee ndox mi ñëw au Sénégal faire revivre les vallées mhm. day day wàññi niveau niveau wu dex gi alors que c'est pas c'est pas le cas tey jii su ma gisee Bassirou Diomaye Faye dem te njëkk a dem Mauritanie mhm. yu mel noonu dama naan mais Bassirou il est intelligent il est intelligent parce que yooyu yooyu mooy li jara waxtaane comment faire tey pour que Mauritanie ñun ñu mën a def lu ñu bëgg Mauritanie ànd ceeg ñun parce da ciy gis boppam ah. mhm. ñun ñu mën a def lu ñu bëgg parce que Gambie ànd ceeg ñun parce da ciy gis boppam mhm. si on le réussit on fait un très grand pas ah, mais malheureusement régime bi fi jaar ñoom dañu yaakaar ne si la France n'est pas ok rien ne peut être OK. Mm-hmm. et et heureusement ñii ils ne croient pas en ça. ils croient qu'ils peuvent faire mm-hmm. mm-hmm. li nga xamante ni aussi euh, lañ doon gis euh, organisation boobu Enda Tiers Monde doon ko dénoncé euh, personne mooy que dañu doon napp suñu jën di ko transformer def ko farine dem di ko dundalee seen ay nag ak yu ni mel alors que ñun fii Sénégal dañuy am problème sax sécurité alimentaire. mais kii Baye Matar. xam nga soo amee dëkk bu mel ni Sénégal. ñu sanc sa état pas selon yow par exemple sunu maam yi. ñoom ni ñu xalaatee état ñun sañ li la nuru li nga doon. non mais ñu sañ ñu sampal sampal la état boo xam ni moom dañ dem jël constitution cinquième république française ñëw ne la sa état ngi nii. Mhm. dem jëli benn ministre boo xam ni France la daan liggéeyal tudd Léopold Sédar Senghor bokkoon ci seen gouvernement ñëw ne kii mooy sa président. jël ñuy tuddee ay coopérants français def leen ci gouvernement ñuy conseiller ñuy conseiller le ministre de l'Intérieur pendant des années et des a ëpp doole ci ngi noonu ñu indil la léegi nag loolu mooy la colonisation qui continue qui léegi nag comme yow sa mbir yëpp dafa tënku ci kële moom la mu bëgg hmm. pas yow li la war wala li gën ci wal li nga bëgg am na fu muy toll nag audace boobu nga doon wax. Mhm. da naan xaaral nag ma changer. képp képp donne bi. te lii laa permettre nga changer donne bi benn audace mu ngi ci. fit sens de hauteur et de mesure pour intelligence mu ngi ci mais beneen bi aussi euh, Moustapha xam-xam bi. ah bi ngay wax naan lu tax Jomaay njëkkee euh, Mauritanie dem seeti Gazawi. Gazouani Gazouani plutôt <laughs> ma naan Gazawi Gazouani Mohamed euh, Ould Gazouani mais c'est parce que stratégiquement waxuma sax géostratégiquement mais stratégiquement Moustapha mhm. ki nga dëkkal am benn ndox buy senn dal sa kër te ci këram la ndox mi di jóge mhm. kooku doo neexoo moom ah, di nga dem. seeti ko ne ah man de dama seet si woon xale yi na def bàyyi na si jàmm. Hmm. waaw man de eh, waaye seen fii yéen seen ndox mi yéen yéen a ngi yàq seen ndox yéen ngi fay facture xam naa lu bare. Hmm. bu ko defee mu daan ne ah bon nga ne ko mais seen ndox mi day seen ah man de dama doon bañ a kii rek nga ne mun ma ko doon wax. nga ne ko non man xam ne yéen seen robinet moo tax ma xaaral ñii ma wax leen bala seen koo ko wax ngeen neexoo. belle ko defee mu ne la ah non non non kii dëkkuwaay bi neex hmm. mais tubaab musul bëgg ñun suñu dëkkuwaay ak gaañu neex. non non arrangé wu ko. Mhm. faw mu fexe ñëw ne la euh, waa ji Mauritanie attention Ould Taya da lay kii de. Mhm. Abdou Diouf ko ah bon. Mhm. attention. d' l'histoire a euh, démontré que ci événement sénégalo-mauritanien de 89 yi. France a joué un sale rôle. comme ils l'ont fait au Rwanda. les Nazariens Moustapha ils sont comme ça c'est-à-dire que dafa am loo xam ne dama yàlla baal ci tubaab yi ñuy déglu a ngi ñoom ñu ci bëri ñu <laughs> ko. dañu am ay maam ñoom yoo xam ne ci seen gène la nekk. oui mënunoo bëgg nit ku ñuul mënunoo bëgg suñu diine mënunoo fonk. Mhm. lin nu soxlaa rek la moo tax ñuy wax ak ñun. que mel noonu nag yow daa xam sa bopp. tey jii nii loolu nga xam ne yaa ngi wax ne Enda wax na ko effectivement <laughs> lu ci bëri am na sëñ bi suñu jën yi lu ci bëri gars yi dañ koy utiliser ci transformation mais mais mais ultra mais dingue boo xam ni. ñoom liñ ci am mais loolu état bu ko dangu yow jën yoo xamante ni dañ ko wax a dundee ñu koy transforme def ko farine pour yóbbu ko seen dëkk di ko dundalee ay nag. ba pare ba pare am ci loo xam dañ koy jël delloowaat la ko jaay la ko. mooy mooy Paasan merci mooy ton ton bii ñuy lekk. am telling you bërki démb maa ngi euh, bu ne moom li ko. gën ko li ko gën a jaaxal mooy euh, sax di nag ton yooyu ñuy tudd. Mm-hmm. nee na am na ci yoo xam ne fii ci Sénégal. Mm-hmm. fii fii lañ koy jëlee. fii lañ koy transformer am na loo xam ne américains yi ñoo ko moom dañ koy jël def ci emballage américain am yoo xam ne union européenne moo ko moom ñu jël ko def ci emballage union européenne ah, bu ñu demee Europe moom ngay gis ci seen ci seen supermarché yeeg yooyu ah, soo ko jëndee yaakaar dafa lañ ko defee alors que fii ci Dakar gi lañ ko defee yooyu man su ma demee Europe jënd ko fi indiwaat ko Dakar sa coûte mille fois plus cher et sa on se rend même pas compte que ni fii la jógee suñu suñu réew yi man dama dem dama dafa am benn euh, marabu mhm. bu ma bu ma dem këram mu jël ay tàngal mhm. tàngal tàngal ne ma euh, ma téye tàngal bi nii quoi mu ne ma euh, lu ñu ci bind ma xool ma ne ko tàngal defe naa euh, Valda lañ ci bind Valda c'est exactement ça comme comme tàngal man fraîche ah mm. bokkut ak bokkut ak passé mm-hmm. mu ne ma lii de xam nga fu ma ko jënd ma ne ko mu ne ma Italie fii la jóge Dakar gi bul sonn tàngal mu ne ma fii la jóge fii la jóge Dakar gi moom ma ko ko jënd Italie mm. ñu ñu ñu defal ko ci beneen emballage. beneen emballage bien sûr ko beneen njëkk. beneen emballage lay doon. Mm-hmm. si xam nga li muy li muy Moustapha di expliquer. oui nous nous on a ñun Sénégal on a vécu ci désinformation. Mm-hmm. lenn li lu si ëpp dañu kaa nëbb. lu si ëpp daf noo réer te dem na ba benn mois boo xam ne même suñu ay administrateur nekk suñu administration am na ci ñoo xam ne ñii ci corruption bi la ñee ci ñàkk xam la. je mm-hmm. sais que euh, au-delà d'être apprenant que nous sommes. Euh, gars yi nekk des des hauts cadres et cetera doyul pour am xam-xam Moustapha je donne un exemple les produits pharmaceutiques yiy dugg Sénégal. Mm-hmm. moo xam Efferalgan moo xam tout moo xam tex Terpone yiy dugg fii yëpp. njaboot googu njaboot googu mais est-ce que xam nga ce sont les industries pharmaceutiques mais lépp lu siy dugg fii Baye Mata. Mm-hmm. c'est le ministère de la santé qui avalise. via des agents assermentés. Mhm. qui ont été formés par rapport à l'industrie pharmaceutique. ñu leen di fay salaire pour que ñoom ñuy contrôler produit bi par exemple FLNGA bi war a dugg Sénégal suba. bii est war nañ ko bàyyi mu jàll ou pas. pour wax la danger bi ñu nekk ñun. Mhm. mais ñoo ñooñu di liggéey loolu am na ci ñoo xam ñu ngi ñuy déglu. Mhm. buñ la waxee li leen état wu Sénégal di fay xaw ma ñii de. mais ca yaa deux ans trois ans quatre ans cinq ans. ay te kooku mooy signé garab bi ngay naan yow. xam nga nag kooku man su ma indee sama sama conteneur garab mën naa mën naa koo gis jox ko dara. ne ko signé ko jël bu maanuwul. Mm-hmm. bu maanuwul. mën na ko jël signé ko ñu dugal ko. imaginez réew buy dund ci sens boobu. pendant temps là nga jël nga jël suuf jox ko ñoo xam ne xaw ma fu ñu xëyaloon Sénégal. mais ba ba on peut passer ça ah, fait une maa ngi posé question. non on peut passer des nuits. mu ni ko Pape Diop Diop mi ngi wax waaye mi ngi ñaxatoo xepp. nee dañ ko koo fay ah, moom. kan oui oui Pape Diop ah, on peut passer des nuits Moustapha xaw ma Pape Matar. oui liñ ci mën a wax bare na. Mhm. je donne un exemple. oui un dernier. moi mhm. bu ma demee diggu Milan wala Rome jënd kër. bu ma foo dëkkee amul problème. Mhm. Moustapha bu ma ci tegee beneen kër. état bi ñëw ne ma da ngay fay kër gi day fay. maa ko moom. Mhm. mais da ngay fay tax. sax day gën a cher. bu dee France. Mhm. domaine bu nu mu munti tool ñu ne ok da nga dinañ la fayeeku fayeeku ba mu jigéen nga ne leen bàyyi ma bàyyi leen a kër gi. Mhm. ñun Sénégal ab étranger jógee fële ñëw tabax immeuble. du tabax benn de ay immeuble. dina ko luy ñun. xamaa xanaa loolu moo la dundab lagara. lagara mooy lan. lagara moo la pantal. Eh. mooy koo xam munti taxaw di. <laughs> <laughs> waaw ñu tëjee ak yow <laughs> ci question accord yeeg euh, mbirum pêche bi xam naa suba incha ñu ñëw ci agriculture parce que aussi euh, comme ni ñu ko waxee def nañ si euh, lu mu tudd rencontre interministérielle aussi jël nañ ci ay décision que ni engrais yi léegi militaires yi ñoo koy séddale. merci incha allah dañ si dañ si waxtaan suba incha allah. alors et Pape Matar oui. ce qui est génial. te dégguma presse bi développé que. Mhm. mooy pendant trois ans Moustapha les paysans n'ont pas été payés du 6 au 10 mai. suba ñëw. ah kay incha allah <laughs> du 6 au 10 mai Ousmane Sonko il dit au ministre des finances diggante le 6 le 10 fayal gars yi 2021 2022 2023 xanaa neex. Mhm. neex neex ah. te te te taawu Idrissa Seck ak Ablaye Wade bi ñu nekk premier ministre. bon bi nekk premier ministre. te presse daf ñoo doon tànqal ak. bon MP bon MP la une des journaux c'était que ça bon MP mm-hmm. bon MP. Mm-hmm. bon MP bon MP. Mm-hmm. Ibrahima mooy tëj. Ah, ah baax na ah, léegi yow Paasan ah, Paasan <laughs> non j'ai pas compris je croyais que une question pour moi. ma <laughs> dama déglu ñoom ñu ngi développé ci accord de pêche ma loolu jox nga tëj rek. ah ok non mais c'était un plaisir vraiment de les uh-huh. parce que ils ont une plus grande maîtrise que moi vraiment surtout Paasan quand même. Euh, comme moom lébu la donc il maîtrise vraiment cette histoire des des accords de pêche ñun am na am na lu ñu ci lu ñu lu ñu ci doon dégg rek. bon en tout cas Moustapha rappelé na ko sànq mooy que. Mhm. les licences de pêche je crois que jusqu'en 92 91 92. jusqu'à la période qui a précédé un peu le le bi ñu defoon pour financer les les infrastructures sportives vraiment dafa doon jaar ci yoon. mais à partir de 92 la ci leneen commencé mooy quand on a commencé à donner euh, à à à ñuy gérer euh, les licences de pêche. Mhm. ñuy mhm. renflouer les caisses de l'État pour financer. parce que Ibrahima les accords sont différents des licences. exactement waaw waaw les accords de pêche ne sont pas les licences de pêche. effectivement donc on a commencé après. mais mais même quand les quand cette histoire de la de de CAN s'est terminée. Hmm. quand la CAN s'est terminée les gens ont. continué à continuer absolument loolu la nawet doon dénoncer. effectivement à à à alimenter les la caisse noire du président avec ça. je hmm. crois que même Abdou d'accord donc y des gens qui sont y une oligarchie qui s'est enrichie avec euh, ça. Hmm. et puis loolu moo woy ba ba ba ba ba ñu nekk ni donc je je pense que on est sur une belle lancée. inchallah gis euh, euh, rapidement en 30 secondes pour résumer li ñuy wax ñoom ñaar ñi. man dama ci am discussion ils ont un débat indirect. Mhm. parce que kenn ki man la waxal keneen ki mën la wax mais ñoom ñaar waxuñu. c'est deux personnes qui ont été au cœur vraiment de l'administration du temps de de Diouf surtout au cœur de l'administration. qui ont vraiment travaillé à faire cette administration la kenn ki daf naan ma moom li mu gëm mooy le BOM bureau. méthode organisation et méthode explique la li tax mu gëm ko. Mhm. keneen ki ki a été avec lui dans le BOM ma di le BOM est dépassé. Mhm. maintenant ce n'est plus organisation et méthode mais c'est résultat mmh. administration yi bu njëkk doo doo daaw ñu leen demande résultat dañ leen demande une organisation une méthode loo ci def ci biir triant yeeg lekk geeg yëpp c'est pas grave mais léegi fi àdduna toll mooy administration comme ni ñuy demander les gens du privé des résultats noonu exactement une administration de résultat contrat de performance mmh. merci Ibrahima administration léegi performance la et j'espère que Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye Faye ils l'ont parfaitement bien yooyu. loolu la. mbooli sama mbokk yi la. ah. mais traduire ñu ko bu nekkee bu dëgg kay lan la ñuy danoo sant suñu boroom lii ala sant yàlla. non non wax day yokk day yokk day yokk day